doy wulif bépp nuyoo te benn nuyoo munta doy wulif ko mu làmboo jàmm yàlla ki yërmandeem ak barkeem ñi koy ñaan man borom bi mu sëmbatal ko ci suñu kaw ilaa yawmil xiyaama ñu ngi del siwaat ak yéen ci jotaay bi nga xam ne sosoon nañ ko ak yéen muy tuddee ko jotaayu koor mooy jotaay la boo xam ne dañ ci ànd ak yéen jëm ci wàllu koor ay masalaam ak yi ni mel ci seen site bi ngeen xam mouslih tv com ngeen ci ànd ak seen mbokkam daara Alioune siise yàlla dogaloon na jëlan neen suñu dars bu njëkk ci koor gi kon tey ñu war a ñëw ak yéen suñu ñaareelu dars biñ fi mujj borom téere bi mu ngi doon jàngale ki nga xam ne amaana dafa dog a kooru kooru naafila ci njuumte kooku mu waxam ñu ne moom kooku du ko fayante bi xilaafil farida ci wuuteeg farata bu doon faratal nag moom daf koy fay kon suñu darsi tey mi ngi commencé fi muy wax ne wala ba'sa bi siwaakin li siyaami fi jamii an nahaari ba bunt ba jeex mu ne wala ba'sa aayut wala ba'sa dara nekku ci wala ba'sa aayuñ bi siwaaki ci soccu li saa'imi ci ki fi jamii an nahaari ci mboolem bëccëg bi nee na nit ki woor ko dara nekku ci mu yendoo soccu waaye nag wa yukrahu sib neen alxijaamatu nàmpatal ak miir miiral dee socc nag ki dañ koy moytundikuloo muy soccoo socc bu mel ne xijaamatu nàmpatal tamit ne nekk ci mooy ki nga ah, ñi am deret di dee nga daan jël lu mel ni béjjën di pour génne ko nee na loolu tamit nekk ci ci ne waman zaraahu kook na ko alxay u wàccu fi ramadaani ci weeru koor mu ne falaa qadaa alayhi kook du ko fay képp koo xam ne danga woor weeru koor ba bëccëg wàccu dikkal la teyoo ko waaye nee na kook dara du ko fay lu dul ne moom dafa sàggan am lu génn ba ñëw ba ci gémmee ngi mu delloowaat ko ci biiram bu dee loolu nag boobaa da yàq kooram ndax koor li ko yàq ah, kullu maa tu'aadu lil mii'aad lépp loo xam ne dafay dellu ba ci mbàq rek loolu mooy li yàq koor mais lu génn ba mu war koo génne sàggan ba wannaat ko boobaa loolu dafa yàq kooram mu ne wa inistaqa bu dee dafa looju faqaa am wàcc mu wàcc fa alayhi war na ko xadaa u fay ki nga xam ne nag moo jël baaraamam dugal ku ci gémmiñam pour wàccu kook bu waccoo a kook dafay fay mu ne wa ida xaafati soo xamee na ragal na alxaamilu ku ëmb ala maa fi batniha li nekk ci biiram ki jigéen gi ëmb nga xam ne moom mi ngi ragal doomam ji nekk ci biiram bu wooree mën naa métteeg moom wala coono yum yi métti la ci nar a daj kooku boobaa danañ ko may aftarat mu dog waaye nag walam yuti am te du leexale dara maanaam du joxe ah, mi mudd boobu ñuy wax waaye wax xii la am na ñu ne nag yuti amu day leexale am na ñu ne tamit boobaa bu doggee tamit day leexale mu ne walil murdi'a ñeel na aji nàmpal isa xaafat su ragalee ala waladiha ci doomam ji muy nàmpal bu wooree du am lum nàmp te walam yajit amut maa yastajilu lahu lum mën a fay <coughs> pour ñu nàmpalal ko doomam bu dee amul lool comme ni ko arab yi daan defee awalam yaqbal xayraha wala xale bi sax moom nanguwut ku dut yaayam nàmpal ko kooku boobaa an yoftara na dog waaye wa yutam tamu lexele bu dee yow daal am nga doom doom ji nanguwut ku dut yow wala nga amooloo fayee pour jox keneen ku la nàmpalal sa doom te tamit boo wooree xale bi mën naa sonn booba islaam nee na la nga dokkoon nee na wayu taamata lexele mooy nga joxe mudd boobu ñuy joxe sag bis mu ne wa yustahabu sopp nañ li sheykhil kabir ci mag mu mage isa aftara su dogee maa mënut ta mu dog an yu taama mu lexele maanaam muy joxe mudd moom tamit waaye wal itaamu mu lexele ga fii kulli haza ci yi mu wax nii kullihi yépp mun a muddun mudd la an kulli yawmin ci bépp bis yaqdihi ba fay na ko waaye wa kazalika naka noonu tamit yu taamu day lexele man farrata képp ku sàggan fii qadaa i ci fay weeru koor xataa daxala alayhi ramadaanal aaxar ba beneen weeru koor fekk ko fa ki nga xam ne amoon na kooru daaw année bi yëpp fay ko ci ba koor ren gi fekkaat ko fi te fayut bu koor gi jeexee bu koy fay day ànd ak lexele ki nga xam ne waxu ki sàggan nag la ki nga xam ne amoon na wéroon na dara jitu ko mu toog naa naa bàyyi ba Shaabaan ma door a fay naa bàyyi ba Shaabaan ma door a fay fa daal dogal Shaabaan ñëw ngànt am kooku dañ koy jàppee ko sàggan ndax 10 mois yëpp mënoon na ko cee fay fayu ko di bàyyi ba ci mujj ga far am boobaa dañ koy jàppee ko sàggan kook booba bu koor gi jeexee buy fay loola muy amoon daaw jéeg day ànd ak lexele kon lexele ñii mu wax nii mooy mag mu màgge beeg ak yem njëkkoon lim yépp boobaa ñoom buñ dogee seen koor day ànd ak lexele ndax koor ñépp la war ak ñan la war loolu la bëgg a leeral mu ne wala siyaama déet koor di war ala sibiyaani ci gone yi xataa yaxtalimal xulaamu ba xale yu góor it gént maanaam góor bu tollee ci jamono dana ba toll ay fukk at ak ñeent ak juróom côté yooyu dana tëdd gént am lu génn ci moom loolu bu fa yeggee rek day xam ne majeur na moom góor moo tax nee na gu xale yi koor waru leen fekk géntuñ waaye nag na wa taxidul jaariyaat yi ak mbërëgu jigéen ñi bu dee jigéen la bu gisee régal fekk yeggut foofu wala yeneen mandarga yi nga xame dañ koy xamee mu xamee mu kalaf la borom mursid wax wa kullu taklifin bi shartin aqli ma al buluuxi bi dammin aw xamal aw bi maniyin aw bi inbaati shaari kon yooyu nga xam ne jàngaloon nañ ko fi mooy bu ci amee benn bu ci amee benn na xam ne majeur na bu dee góor ak jigéen ku nekk wax na lan lay majeur boo ko amee na xam ne léegi koor war na ko waaye bu dul loolu nag buñ ko defee dana wér waaye waragu leen mu ne wal buluuxu seen gént ga wa bil buluuxi ci seen gént lazimat mu war na leen amaalul abdaani mboolem jëf yi nga xam ne islaam da koy diggee pour ñu jëf ko alfaridati yay farata mboolem jëfi farata yi boobaa bu ñu yeggee foofu nag islaam da leen di wax ñoom tamit ñu def ko comme ni ko ñëpp di defee mu ne wa qaala subhanahu borom bi kaw bi nee na wa ida balaqa al atfaalu minkumul xuluma falyastazinu bu gone yi yeggee ci seen jamonoy gént ah nañu diisoo di def liñ mag ñi def yépp buñ fa yeggee ci jamono yi nga xam ne ñoom yegg nañ ci bulux muy gént bu dee góor mu gént bu dee jigéen mu gis reegal ak yu ni mel mu ne waman asbaxa ko xëy na waman asbaxa képp ko xëy junuban am janaba wala mbet taxar ta sanguut aw imraatin wala jigéen xaaidun kumbërëg taxurat koo xam ne laab na xablal fajari njëkk fajar waaye falam yax tasil ta sanguñ ñoom ñaar falam yax tasilaa ta sanguñ illaa baadal fajari ndara ginnaaw fajar ajizahuma doy na leen ñoom ñaar saw sawmu dalika al yawma woor bis booba loolu mooy lan ki nga xam ne dafa am jana ba amaana daa jotee woon ak borom këram wala daa jotee woon ak soxnaam wala góor gi te doon gént wala soxna si nga xam ne amoon na régal dem ba diggu guddi régal ba arrêté yàlla dogal nag sanguwuñ sanguwuñ sanguwuñ ba fajar fekk leen fa ndax ñoom ñaar ñoo ñooñ mu wax noon ah loolu yàquut ak seen koor dara mën ne woor mën nañu woor ñoom ñaar yàqu dara ci seen koor gi ndax yent yàlla Muhammad yent ci Aysa ak Umu Salama wax ne yent yàlla Muhammad daana yeew ak janaaba goo xam ne ci ci gént la koy jëlee wala yu ni mel te daana xëy jàpp kooram moom yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu ne wala yajuusu du dagan sawmu yawmu fitri woor bisu korite wala yawmi nahri du jaage ne bisu loj mooy bisu tabaski wala yasuumu yawmayni lazzayni du ñaage ne ñaari bisi bànneex yi nga xam ne ñoo ko méng mooy ki ak ñaari bisi ko féetee ginnaaw baada yawmi naxri mooy ginnaaw bisi loj ba illa mutamattian dara kiy def aju aju mutamattia allazi ki nga xam ne laa yediyu hadiyu ki nga xam ne amut hadiyu mi war na rey kiy def aju tamattu xam ne daa war a rey mu xar ah, waaye bu dee kii kon gëlëm boo ci gën wala bugg amut nag ak yooyu mais bu dee amut hadiyu bi daal daa war a woor bis yooyu ku kook nag booba ñaari bis yi nga xam ne moom dañuy aaye ku ko woor ku dut koog ndax bis la yoo xam ne bisi feet la ci islaam nit ki dañuy bëgg mu xëy lekk ka naan boobaa ku dut kuy def aju tamattan rek kooku dañuy aaye mu woor ko xam naa kon ñi ngi ñëw doy lool di wax ne lépp loo xam ne leer na ci yàlla la lépp lu ci dëng ñu nii di wax ak yéen la ñi ngi jaajëfal oustaz Saïd mi nga xam ne moom lañ jàkkaarloog ci technique bi di jaajëfal mboole mbokk yi nga xam ne ñi ngi topp ci site bi waaye di soññ ñi nga xam ne abonné wuñ ci ñëw abonné ndax di man a am émission bi rek bu duggee direct kon ku nekk na yéen ci kàddu gi seen mbokkam daar la Alioune Cissé in uridu illa al islaha ma stataat wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon ngeen xam ne lislaam dootul fay